bisimilah barke borom Tuubaa jërëjëfe seexul xaddim jërëjëfe seexul xaddim jërëjëfe seexul xaddim euh, ku sëriñ bi gàttandu sañ nga sant de tawar nga sant euh, gàttandu nañu euh, jërëjëfe seexul xaddim maa ngi nuyu daare yëpp di leen yëgal xabaar bu neex itam ndax bi ma ko Cheikh Mamadou Mountakha di wax dafa ne ma maa ngi lay yëgal xabaar bu neex kon nii leen koy waxee ndax lantinoor rek lañ fas yéene doon nee na weeru koor bi incha allah dañ koy delloo fa mu nekkoon dina toog teewlu njàng mi kuréelu xaside yi di yëkkati xaside sëñ Tuubaa yi loolu kon ñu ngi koy defee fañ ko daan defee ci biir kër sëñ Tuubaa yi kon ànd nañoo équipe technique yi euh, direction générale ñu ngi koy xool dañuy dinañu génn ay plan d'action opérationnel ci fànn gu ci mën a doon dimanche gën ngaa sori loolu kon na ko ñëpp xam. li nga xam ne nag mooy assignation euh, gam euh, li nga xam ne mooy assignation koor gi na ku ne def noo xamante ne day mel ni mooy téeñ bi nga xam ne dangay wane ne attan nga ziar bi waaw téeñ nag moom ku fas yéene yanu <coughs> moom mooy jël téeñ di ko teg ci boppam sëñ Mayib Guèye day euh, kilifaam mi nga xam ne mooy wasilaam di sëñ Daam Abdourahman Lo na am gaal goo xam ne ñetti nit sax attanuñ ko te mu war a dem ci sëñ Modou Moussa mu ne kan moo ko mun a yóbbu sëñ Mayib ne ko bu ñu ma ko ñemee dinaa ko mun a yóbbu kon loolu teeñ nga xam ne kon pas-pas boobu ak façon boobu loolu mooy teeñ ci baatin mais am nag teeñ ci saayir mooy jël loo xam ne koy teg sa bopp ngir li ngay at yanu mu waaye bañ ko ko defalee day fekk na sëñ Modou Moustapha ci Daaru Xuddoos gii ci Touba ba mu dikkee sëñ Modou Moustapha ne ko biig de ba ngay jàng ca ndaam jës bu ci ginnaaw gee maa ngi koy teewlu te boobu rajo amul kon kooku doy na soññe ci suñu kuréel tey kon nag ñun am na nu sas ñi nga xam ne ñoom lañuy nekk roy ci seen i tànk ñooñu ba ñuy dem yóbbuwuñu seeni i dañ ko fee bàyyi ngànnaay yàggoo kon nañu nañu laxasaayu waat xam ne liggéeyu koor gaangoo seen bu laxaat nag daan wax ne ñaari ngi nii yoo xamante ne du ma nangu ku ma ci mën ci liggéey sëñ Tuubaa weeru safar ak weeru koor dafay alali sëñ Tuubaa yoo xamante ne moom ku ne man yëfi sëñ Tuubaa laa yor war naa fee ci say mbir kon maa ngi ciy soññaat daara yëpp ay ca murit bu kenn bu kenn arrière bu kenn tiit bu tenn genn geesu lépp dina baax te sëriñ bi fi ñu toll ni fas ni yéene yëf yi yomb ci ñun waaw bëgg na ko te ku ko jekku la nag ndax du sàkku ci sunu boroom loo xamante ne day yéex a agsi sax waaw te sàkkul nañu ko waaw nañ ànd ak rafet njort góor góorgóorlu kon loolu laa doon xamalal daara yi na gaa yëpp jekk sëñ Lamine Diouf dina ci ñëwaat su ko defee ñu xam ne euh, liggéeyu koor gaa ngoog képp koo xam ne daal bëgg nga liggéeyu ziar bi woyof ci yow toy koor gi moom nanga ko jàppee teeñ rek hmm. te def ko liggéey bu gaaw bu dee xar bu dee ginaar bu dee euh, Euh, bu dee xar bu dee ginaar bu dee fruit bu dee diw bu dee ceeb bu dee suukar nga xam ne gën ngaa néew ñaar ba ñetti saaku par jour la ñuy utiliser ba ci tey jii démb rek sëñ Babacar Diallo mi ngi may wax ne glace gi mu daan def nga xam ne bis bu set ah dina am glace goo xam ne mboolem kuy ñëw kër sëñ Tuubaa yi glace gi ñu lay jox moom daf ko doon fàggu chaque chaque année ñi nga xam ne mooy boulanger yi ñoom sëñ am di loo lañ daan def ak ñoom sëñ Moustapha Mbaye lañ doon def côté Touba kon loolu moom su ma ko tuddee rek bàyyiwuma benn membre na ñëpp xam ne sëñ yi nee na dama lay wax xabaar bu neex liggéey koor yi day delluwaat fa mu nekkoon tey jii sëñ Alioune Guèye ak sëñ Lamine Diouf dama leen booleeg ay gan yu tedd yoo xamante ne dañu waroon dem ci sëriñ bi bañ demee ci sëriñ bi Alioune Guèye de bu ko sëñ bi joxee loxo daf ko ne bàyyaa ngi wàcc xasida yi kon xam nga man suma ko informé wul woon dinaa am kersa si yàlla ngeen ne ko sëñ Youssou wax nañu lépp kon wàññi nañ ba jekk kon defe naa jërë ngeen jëf dama ko doon leeral daara yëpp ba kenn ku ne xam ne man bàyyiwuma kenn ñi ñu àndal ñëpp kenn ku ci ne jàpp naa ne sëpp nga ci ñi àndoon ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ñi àndoon ak sëñ Tuubaa kon xeebuma ci kenn ku ci ne cër boobu laa la jox kon ay ci murit ay ci murit inna laa maanaam